internet yi bàyyi xel ci sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey mardi di février benn ponk lay doon muy tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngi koy amal ci résion bu Sédhiou moom njiitu réew mi nag démb la fa yegg ci bi 17 heures di jot kon ab avion bu armée national la fa demee mu ngi fa sax wàcce ci aérodrome bu jënde bi 17h di jot kon nit ñu bëri tertu ko fa ñu dalee ko foofu nag ba fi nga xam ne sax moom mooy euh, gouvernance ba ba suba tey bi nag ci lañ doon amal li nga xam ne moom mooy conseil présidentiel de développement pour région bu Sédhiou ca loolu nag njiit réew mi xamle na ne 200 milliards ya nga xam ne moom lañ fa annoncé woon euh, ci atum 2015 bañ fay amal conseil des ministre décentralisé mu ne loolu sax euh, weesu nañ ko eh, ci ay investissement moom it eh, xamle na ne kon eh, li nga xam ne moom mooy région bu Sédhiou daal dina bénéficier lu talu ci quatre cent milliards francs CFA muy ab budget investissement boo xam ne kon dinañ ko def si ñetti at. Euh, bokk na euh, ci programme njiitu réew mi Macky Sall bésub tey bi euh, mardi li nga xam ne nag moom mooy inauguration bu pont bu Marsassoum muy nag ab jumtuwaay boo xam ne nee nañ jot nañ ca def lu toll wala boog lu ëpp vingt milliards de francs CFA boobule sax njiitu réew Macky Sall nee na kon dinañ ko dippee Famara Ibrahima Sagna moom nag doomu Casamance la moom nag nekkoon na fi lu bëri yoon ministre ci gouvernement Mang bu Sénégal euh, fi mu nekk nii te mooy président honoraire bu conseil économique conseil économique euh, social et environnemental moom Famara Ibrahima euh, Sagna nekk nekkoon it njiital comité de pilotage bu dialogue national biñ fi doon amal muy nag loo xam ne kon ñu bëri rafetlu nañ ko. Euh, ba léegi ba suba ëllëg di mercredi premier mars njiitu réew mi dina wéyal kon programme bi ci nag loo xam ne conseil des ministres décentralisé la ñu war ko amal nag ca hôtel de ville ba euh, bu 16 heures jotee euh, wala boog dinañ ko amal ci hôtel de ville ba bu 16 heures jotee nag mu war a amal ba léegi kon ci bés suba àllarba ji lii di inauguration bu hôpital. régional Amadou Tidiane Ba ba léegi foofu foofule ca euh, Sédhiou bu dee nag euh, jeudi 2 mars njiitu réew mi Macky Sall nag dina fa amal euh, lancement bu travaux bu bokkul di pakaaw bu 10 heures jote fa ñuy wax sandi ñëri muy nag kon ab axe boo xam ne dina rëyle sandi ñëri ak fi ñuy wax saare teneng ci route nationale numéro bi ñuy woowee route du sud bi nga xam ne kon mu nga jaar fa ñuy wax karan karanta ba ak it koli bantan ba léegi ci alxames bi ñu ne bu mi jotee njiitu réew mi dinaan amal ab visite ci centre électrique bu Tanaf euh, wante it euh, muy centre boo xam ne kon bu am solo la te ñu fay euh, liggéey kon wàllum courant ñu ne sax foofu da bokk na ci li kon Euh, euh, connecté li nga xam ne moom mooy réseau bu maanaam euh, tani ak it interconnexion li nga xam ne moom mooy sous régional bi bokk na ci sax approvisionnement bu électricité Guinée Bissau Gambie Sénégal ak Mauritanie kon boobule centre électrique bu Tanaf centre bu am solo la ñu ne nag bu vingt et une jotee ci alxemes ji njiitu réew mi Macky Sall dina fa amal ab face à ak nag. Euh, ndaw Sédhiou ci la ñuy woowee jàkka jokkoo ak Macky vendredi trois mars njiitu réew mi Macky Sall moo nekk kon euh, bés bu mujj bu tournée économique boobu nga xam ne kon dina ko amal foofale ca Sédhiou ñu ne nag euh, dinañ dem ci li nga xam ne nag moom mooy prière inaugurale maanaam ak julli boo xam ne kon moom la ñuy daloo li nga xam ne moom mooy grande mosquée bu Sédhiou bi nga xam ne dañ ko doon defaraat. ba léegi alxames bi ñu ne bu 16h jotee njiitu réew mi Macky Sall dana dem fa ñuy wax centre de formation professionnelle euh, en foresterie bu li nga xam ne kon euh, moom mooy euh, bun bun binking bun binking kon foofu it dana fa dem wante dina amal ab visite ca bogal fañ naan ca bogal ak ca Njamakuta nekk ci li nga xam ne moom mooy nooru Sédhiou dellu sikk njiitu mi Macky Sall nag fii ci Ndakaaru ñu ngi ko euh, daal war a amal kon samedi euh, samedi ci suba si euh, mu war a daal kon jël ab avion ci foofu nga xam ne moom mooy aérodrome bu jënde bi nga xam ne it kon defaraat nañ ko ba mu jekk loolu ñoo ñu tey xibaar rafetlu seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa ngeen jëf.